papa kenn mu toog yow te di wax yu sport tey lamb coow li bari na surtout coowal CNG entre la CNG dañ ko war a def fédération kii dama jiite ba dégg nañ ay jeunes sax yu jóg ku ci mel ni Keba Kanté ku ci mel ni géotechnique dégg nañ ci Mohamed Ndao Tyson ak ku mel noonu problème tey bi làmb am tey. mu làmb ak coow ñoo mës a ànd loolu moo koy dundal te coow li yëpp boo seetloo ñu ko wër ñoo koy wax mais ñiy décider dégguloo ñu wax dara donc loolu rumeur rek lañ ko mun tuddee xalaat wax ñu jox la micro tàllal la ko nga wax nit nag am na droit ni bëgg loo xam ni bi may xale ba léegi moom mooy sama po ci laa màggee def naa ci sama alal jël na sama temps war naa ko mën a laajte war naa ko mën a diriger c'est légitime Keba Kanté li mu def góor loolu lay def su bëggee dara daf koy wone il a très courageux amu ci dara loo xam ne xalaat na ko ci gëm na ni mën na ko yore mais nag xam nga dafa am malheureusement kenn koo xam ne mooy décidé xam loolu dafa doy waar su kuréel goo gis rek dañu war a daje seen biir tànn ki leen di jiite loolu moom normal loolu association internationale yëpp loolu la ñu wax mais nag comme que làmb ji dafa doon kuréel boo xam ne kuréel spécial la parce que CNG la comité national de gestion la mais du comité national provisoire bu doon provisoire kon du yàgg lu ko yàggal mooy comité national de gestion la mais bu ñu demee nag ba ki ñi nga xam ne dañ koy jiitee wala ki nga xam ne daf koy jiite mandat bu mu am ñu renouveler ko mandat bu am ñu renouveler ko ba mandat yu mujj yi moom ci boppam mu ni dafa waroon dem mais ministre bi def ko téye pour maanaam deux ans dafa naa ne kon deux ans yi jot na kon moom li mu fi liggéey rafet na waaye nag loo gis dafay jeex def lu baax durant tout le temps que tu es fi continuer di nekk lu baax la nga defoon day yàqu ndax li koy yàq mooy ñi nga xam ne dañ la wër bëgg a jël sa place bëgg ñoom tamit diriger bàyyi leen ñu diriger léegi d'ici le 31 octobre su fekkee ni par exemple ministre bi renouvelé leen ko ñu ni tant mieux am na raison bu tax ministre bi xanaa duñ ko dénk loo xam ne réew mi yëpp ko moom bu fay teg loo xam ni baaxul ba boo liggéey mu nar ko yàqal postam kooku def naa di ko def donc bu fekkee xalaat nañ def koy maintenir am naa ay raison yu tax mu maintenir ko su xalaatee tamit nii dafa war a bàyyi ko mu dem noppal ko ji je crois que loolu tamit mën na ko def mais en tout cas moom ci boppam nee woon na daf koy prolonger pendant un certain temps te je crois que kon la dernière euh, décision lui revient ministre bi mooy apprécier mooy seet mais nag li muy seet na doon lu leer leeral leer a leer parce que affaire bu CNG du affaire bu ndaw de nit yàgg naa wax jox leen moom mu jiite ñu jox ko mu jiite dafa ci dara ci li ñu bëggoon bu fekkee tamit Alioune Sarr dafay continuer moo xam su dul continuer tamit moo xam mais en tout cas CNG bu ñu koy dénk dañ ko dénk koo xam ni attan na ko loolu affaire bu ndaw.